bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina wa shafiina wa mawlaana wa nuuru xulubana sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi alazim xawnuka yaa muin wa bika nastainu wala xawla wala quwata illa billahi alalun azim mbokk yi ginnaaw bi nu tàmbalee ci turu buur bi subhaanahu wa taala ñaan ci dogalam ak nameelam ak kàttanam mu may na sunu jotaay wi ñu yëkkati ko ci bismillahi rahmaani rahim daanele kook alhamdulillahi rabbil alamin julli ci sunu yaakaar tey ak ëllëg di seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam ak njabootam gu tedd daga te roow laay sànn ko ci boppu njaboot gi ñu ngi ñaan yàlla dolli seeni leer baas ñu ci seeni barke di nuyu di ziyaara xalifa yi nekk ci réew mi yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla woyofal leen seenuk yan jiital ci sunu xalifa sunu soppe sunu wasila Seydina Baye Abdoulahi ñu ngi ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàggam fi ak wéram ëmbaale nu njaboot gi yépp ci góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu nag di ziar nag ñi nga xam ni ñoom la ñu fekk si tey ndax tey ñu ngi ñëw fii ci yëmbal ci yëmbal nag sunu ko waxee ci diine ji taxawaay day feeñ bind jaar jaaru sanga bi dafay feeñ maanaam daara yi dafay feeñ jàngale yi tey nag ñu ñëw imaam dalal nu ak waa yëmbal sunu xarit sunu soppe imaam Seydi mu ngi nuy toog tey moonu dalal ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax di ko ñaanal fu nu toll yàlla na ko yàlla woyofal yan wi yàlla bàyyi ko sunu kanam mu yàgg nu jiite ñu yàgg topp ci ginnaawam di ko ñaanal nag jumaa ji mu nuy jiite saa su nekk mboolem allahuma ba mu wax rek yàlla na sunu borom nangu ko ci barka Baye Laay mu baax bi ci barka imam Mouhamadou Sakhir sunu ne yëmbal nag lu bari dafay feeñ ci jotaay wi tey ndax yëmbal taxawaayam démb la tey doog a ñëw ci diine ji loolu dina feeñ ci biir waxtaan wi ah, tey nag ñu ngi ci kër imam Mouhamadou Sakhir tey nag ah, imam Seydi daal di nuy dalal sunu xarit ñu ngi koy ñaanal waaye nag tey ñu ànd ak jotaay wi si fa seeni séq waxtaan wi ak jëmm yi nga xam ni tey ñoom la ñu nekkal ku ci mel ni Alaaji Seydina Njaay mu ngi nuy toog ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax di ziyaara it euh, Serigne Youssou Diop mu ngi nuy toog ñu ngi koy nuyu ziyaar ko bu baax a baax di ziyaara yit nag euh, sanu mbay ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax Mame Moussa Diop ñu ngi lay nuyu yow di la ziyaara bu baax bu ko defee mbokk yi nin koy ànd ak yéen rek ci waajal appel bi tey ñu ngi yëmbal tey fas yéene waxtaane cosaanu yëmbal waaye waxtaane mag ñi nga xam ne ñu ngi woon ci yëmbal waaye waxtaane nag mag ñi fi nekkoon relation bi nga xamante ni amoon nan ko ak Seydina Limaamu amoon ko ak Seydina Isa ak njaboot gi yëpp balaa ñu tàmbali dara dañuy déglu sanu mbay mu daal di nuy delloowaat ci bindu imaam Saxiir ñu daal di koy dégluwaat ubbee ko jotaay wi. lu fadlin fil aalamiina fa min fadli nabi istaarahu lfudalaau suxaan sadri wa suxalawu lbadru wa min charti kulli chartin jazaau maam li maamu laay lu jiitu bi ngay feeñ diina jooy na ci sawo ngir nga far nañu bandargaam ya fay nooya ak taal baaw li jiitu bi ngay feeñ saw bi dina jooy na ngir ba mel ni doom jur ndey ja ak baay baaw imam saxiir ne nga ñëw yekki diine woote lislaam saxal fi baat bi semmal pexey seytaane mi bañ ko xool mbuur ba ñi na naa da ngay jéem fii lu dul sax nga tontu naan dinay mu jëmool maag toog ba ànd di wax baat baaw maam li maamu laay sabaat sax na tey ndax gaañe da bañ sikar tey seeni set ñooy ñu koy woote ka booloo di kañ buur baaw jigéen ñaa ngi ànd ak góor ñi di xañtu lislaam tey te yow yaay ki xàlloon yoon wa ngir sàmm dénkam mbaaw bu doo woon limaamu laay mi leeral ngiram lislaam lëndëm sànka waa ifreex ndekoon kenn du taal taal baaw maam li maamoo fi ñëw leerum ngirum diine siiwal waa sawu tey ba tax xam na waa sawu baaw walay sawara faas unaasun la naar ya daan saxal seeni manjir ga wooteem jubul booba lu jeeti ngay feeñ kay ndakaaroo ngi woon fii waaye siiwul xameesul booba turam woowa ak box baaw nga ñëw wootee ji ne jàmm yàlla yéen laa woow nit ak ñëw leen jaamu buur bi yayoo sabba jërëjëf sanu mbay ci uh, ubbee goog nga xam ni ubbil nga nu ko ci bayit yu am solo yu tedd yooyu nga xam ni sunu ko déggee sunu xel dina dem ci jëmma joo xamante ni nii liggéeyam ak taxawaayam ci axlulaahi bi kenn du ko fàtte muy sunu waajur wu baax ba di Mouhamadou Saxiir imaam ñu ngi ñaan yàlla na yàlla dolli ay leeram te tas nu ci barkeem ci taxawaayam ci bëgg xam-xam ci taxawaayam ci xam li nga xamante ni nii noonu la war a teg nit ñi ci ñu delloowaat seen xel ci sunu borom waaye doon jàmbaar goo xam ne ci diine ji ci taxawaay bi nga xam ne am na ko macha allah ñu ngi ñaan yàlla nu yàlla taas ci barkeem. kazalika tey sunu doxee ba gis imaam Seydina mi nga xam ni moom la ñu toogal tey sunu xel rek day dem ci Mouhamadou Saxiir moom it taxawaay woowu rek la am bëgg-bëggam googu rek la am mooy xam-xam yokku fépp foo xamante ni imaam Saxiir tegoon na fa daara ji teg fa euh, teg fa li nga xamante ni nii mooy jàngale yi moom li mu bëgg rek mooy yokk ko te macha allah yokk na ci lu bari ñu ngi ñaan yàlla mu may ko mu eggale ko ak sagoom yàlla yàggal ko sunu kanam bu ko defee mbokk yi. Wadja l'appel tey ñu ngi ci yëmbal comme ni nu leen ko waxee ngeen ànd ci ak ñun ci seen télévision TFM religion kon nag bu ko defee damay daal di jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy ji Seydina Ndiaye moom it mu wax nu bu nu nee yëmbal lan mooy yëmbal fii ñu ñëw tey bu nu nee yëmbal it nag dinañ gis ni am na loo xam ne mag ñi amoon nan ko fi ci relation bi nga xam ne amoon nan ko ak Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam mi woote aji boo dax waaye bu nu nee yëmbal nag xam ne mag ñi amoon nañ relation bu mag bu rëy boo xamante ne amoon nañ ko ak taawam ba di Seydina Issa Rouhou Lahi te ba Seydina Issa daal na déplacé wu di ñëw ci dëkk bii di yëmbal loolu dina ci ñëw kon ñu daal di koy jox kàddu gi moom it mu nuyoo daal di ànd ak ñun ci li nga xamante ni nii mooy laajte boobu. yëmbal nag ah, su doon ne nit la dañu naan bàyyi ma nga bàyyi may ndakaaru yaay may yoof ni te yëmbal ah ki nga xam ne moo ko sanc ba tax ñuy wax yëmbal monsieur Anta Diop la tudd sëriñ Ndakaaru Jali Ngoone Mbeng moo koy mooy bàyyam waaye ndeje nag yoof la ware woon wàcc kër sëriñ Ndakaaru Jal am ka fa moom yàlla def moom moomu tam muy samp kër Eh, eh, mot la dem du ko fa jigéen ju ñuy wax bëkk pay waaye bëkk pay boobu mu dëkkoo kat ah gay ndey ja yoof la war a woon itam wàcc kër jaraaf ngon eh, yëmbal ñu nga xam ne ñoo ñoo tax ñuy wax yëmbal waa yoof lañu waa ndakaaru lañu yëmbal nag euh, position am bu ñu nee Cap Vert euh, buli Cap Vert la ñuy wax gorge bi Cap Vert ni Cap Vert maanaam dafa nekk maanaam euh, presqu'île la bopp bi mooy gore jëm jëm jëm ngor jëm yoof waaye nag baat bi nag tàmbale yaraax jëm caare géej ak Cambérène jëm jëm géejawaay yëmbal nag ci diggante boobu la ne ci boli gi digg boli gi la ne boo taxawee ci digg yëmbal xool te fu kawe xool sa nijoor jublu penku xool sa nijoor gis géej tefes ak caari géej xool sa càmmañ gis tefes ak géejawaay foofu la yëmbal situé yëmbal nag cosaanam moo di aar ndakaaru sécuriser ndakaaru moo taxoon doomi jëli ngoone nga jooju ñox mu Anta jéggi buntu ba yaraax bi ñëw ci tund bi géejewaay yi nga xam ne eh, moom mooy yi ñuy wax wekket nga xam ne ku ma saan jóge Kajoor boo ñëwee ba foofu foofu ngay teg summiku wekket daggat bi nga ak ak xaaxaam bi defaraat sa yére dugg ci siyaan yi jàngu eh, toilette door door a Ndakaaru foofu la defoon baasam nag def nag ànd ak gawar nag ñuy def riiti nag navette ñaari tefes yi. tefes ak caari géej gi boobu caari amul ak tefes ak géejaay boobu géejaay amul waaw su ko defee taal daay nag mu takk nag ba mbëbës yaraax ba mbëbës nga xam ne fépp leer na ñuy ñu muy seet nag koo xam ne da ngaa bëgg a dugg ndakaaru bu leeree mu bàyyi la nga jàll bu bu leerul mu mu sàkk ci yow pexe ba ñu woowee àll bi sax zone boobu su ko woowee tout zone wu àll àll bi jaar rey lu tax jaar rey parce que dañoo mot de passe boo xam ne jaar. da ngaa tontu rey bu guddee bu ñu nee tase yow ne la jaar ah boo tontuwul rey ñu xam ne bokkoo ci eh, ñu jàppal xam ne bokkoo ci enquête la seet boo war dem dem waroo dem ñu xam ne waroo mooy cosaan li position géographique bi tam mooy foofu ah loolu kañ la am Musaa Anta mu ngi jógee Ndakaaru vers boo bàyyee ba ngi nekk mag am ay dawal jàpp yoo xam ne dañu daan ñëw. di dugg si ndakaaru di toj yoof di toj mbaaw di ayibal ba looloo taxoon njàmbat li bari mu ñëw def toog toog foofu nekk soldaar bi nga xam ne mooy monte garde ci buntam ndakaaru loolu mooy cosaanam ah mu ne fi 1810 nag ba vers 1828 mu génn àddina moom Musaa Anta waaye mu bàyyi fi la ñetti doom yuusu mooy taaw bi ab seetam a ngi ci jotaay bi toog ah, teg ci ceer ceerno ki mu tudde baayam bi mu faloor ñu kan jëli bëkk ak Souleymane mi nga xam ne moo ci gën a ndaw ñooñu la fi bàyyi dama génn àddina nag vers 1828 bi mu génn àddina nag doom yu ñuy wax ceer Ceerno Jàll toxal dëkk bi nag indi ko fii ci yëmbal fii ci gutëdd ci yoonu marañ bi am na guy gu fa nekkoon goo xam ne cosaan la dafa tëddoon nii waaw foofu la defoon dëkk bi ne damay nekk sama liggéey suuf foofu lay dëkk foofu la nekkoon moom ak rakam Souleymane ah ba 1857 Ndakaaru jël si yóbbu ko mu dem Ndakaaru nekk sëriñ Ndakaaru bi nga xamee ne nag sanga bi sanga bi woote na monsieur Seydina Limaamul Mahdi vers booba moom mu nga Ndakaaru waaye yëmbal gi booba. Euh, magam moom nelawoon na bu yàgg ca somb parce que comme daara moom ma bay joxu ba muy ju ma ba joxu baax ba muy attaqué commando fen ca siin dafa daanu ca somb sulay Suleymaani maay euh, moom itam yàlla def mu gàttu fan dëkk bi jirim ba mu jirimee nag la dem yoof moom la yónnee yoof moom jël moom ca moom néegam ndey ba ci la jëlee sama maam man mii maa ngi njaay indi ko fii dénk dëkk bi bi sang bi sang bi wootee booba mag la waaye booba fekk na eh, gune yi tam màgg nañu vers 1883 booba gune yi màgg nañu daar nañu ki nga xam ne moo mag ci doom yi di sëriñ paate eh, mi taaw yuusu jàngi na ba ñëw ni ci dëkk bi ak rakkam Momar Daouda Malick ñoo ñëpp di njaboot ak sëriñ Ndakaaru jël ba mu wootee ñu wax ka ne am na koy woote ci yoofu de sëriñ Ndakaaru mooy lu mu wax mooy nee na day ki ñu doon xaar mooma mu nekk ki xaar doon xaar almuntasar bi ñu doon xaar mooma ñu ne waaw mu ne lu mu wax mooy nee na mën a démb mën a tey ah mu ne man de li ma ci concerné ci mën a mën a tey jooju am na nga nekku nga nekku ko jur ñu ne alsaan alsaan ma jigéen jaañ alsaan ma jigéen jaañ ma jigéen jaañ am njàppali mbeng njàppali mbeng sele mbëggey man mii jël ba këppay jur ma ndëpp géy ndëpp ak selam bokk ndey ak baay ah Ngoné la woon ca màkk wane na fii la woon ca màkk judduwaat na fii nuroo na de ah ngeen lu wax mu ne dana mën a dem mën a tey mën a Mamadou dem ba màkk may mën a tey fii ci yoofu lu ma war ak moom ci jikko taxawaay bàyyi leen mu ne ne ah man li ma concerné nuroo na benn la waaw te fii ci man lañu ko doon séentoo te maa fi ne ngoon nag ani sama njaboot ñu ne ñu nga mu ne sëriñ boo leen ma sëriñ paate mu ñëw ani Momar mu ne maa ngi nii may dem leen ci moom yéene moom yéene yéen mooy yéen te gën seen loxo nangul ko lim ko jàppale ko nag ci mission boobu ko yàlla yónni waaw boobu kat bu ko ak moom bu leen ko bàyyi moom de waaw ñu ne fa nag di ko sax fa di ko wéttali di ko wéttali waaw ñi nga xam ne ñoo jaar ci mbedd yi di sànni defatuñu ko lu tax ah waa kër Moussa Anta borom fas yi ñoo fa boof ñu ne ah sëriñ Ndakaaru nangul naka de ñu ne nangul naka ñu ne waaw nakaaru ah daal di daje ne sëriñ Ndakaaru jàll tubaab bi position bi mu jël ak kii ci yoof di woote mbooloo mi muy dajale waaw loo ci xam mu ne man day nangu naa li mu woote te ku ma déggal ni nga nangul ñu ne ah ñun mënoo mënoo doxe defe noonu ni tubaab bi nangam ak nangam mu ne nga lu tax ñu ne ñu ne lu tax ñu mu leen ndëpp lii nga xam ne moom laa yor muy photo yu njakaaru bi bu dee moo tax ngeen jël ko jox ko leen waaye man nangul naa ko te su ma amoon doole dese woon doole kantan na sama waa kër saxee foofa noonu laa fay saxee waaw waaw ñu ne ka ah, ñu ne waaw ne sama juddu bi ma yor sama traite ji ma yor ak taxawaay bi ma yor man man man jëli bëgg maag sama njaboot jënd nañu ko nangul Seydina Limaamu dooni taalibi waaw daal di yónnee nag mer daal di ka ne képp ku ñëwati ju di bu ko delloo yow fa ngay xatal ni ragal tubaab bi nakaaroo ngi daw res waaye man jëli bëkk di tàmbalee yaraax ba mbëbës maa ko yilif di tàmbalee géejawaay ba tefes caari géej maa yilif ma ku ñëwati laa wax ki bëgg a toog na toog yebal ko am naa bayukaay bu dee mbayam joor la am naa bayam am naa ay dër ay tooy tooy bu dee mbayam mbayam dër lay bay am naa ay nappukaay ñaar yor tefes ak yaraax bakkale ngay dem tuwaawoon pël mana di tàmbale yaraax ba mbaaw maa ko maa ko yilif waaw kuy napp mën nga fee napp ku sax mën nga sam ku bay mën ngaa bay loolu moo sabab Malika gii ma Malika ñi ko sànc bu ñu ñëwee yëmbal gi la ñu nekkoon am nañ fa juróom benn weer ku ñëw ñëwee ma Malik yëmbal ba bari lool si naa mu jógee yoof ñëw ne waxtaan ak mag ñi ne leen ñii kat ëpp nañu surga ëpp nañu dëkkuwaay na leen may seen dëkk bopp li maa mu dem ba Malika ñaan ci balab ba dëkkal leen loolu mooy cosaanu Malika gii waaye si naa mu wul yëmbal wóolu na yëmbal jàpp na yëmbal ñi nga xam ne léegi rek bàyyi laay gi di leen gindi ba ñëw uyu si ko Cheikh Jibril Gaye la la jóge ba mu ñëwee na amana mu ne koy mu ne ko yëmbal tafsir Momar Ndiaye den ba mu ñëwee mu ne ko yëmbal Cheikh Matar Lo njàmbur ba mu ñëwee mu ne ko yëmbal waaw nag daa dem nag beneen dimension bu roobam bu tolli dolli ko ci ba mu amoon waaw ndik borom dëkk bi nangul na ko ba ñu dem di jëb di seeti limaamu di jëbalu ci limaamu dëkk bi ñëpp a àndoon dem borom dëkk bi ba ci serbi bi yoroon gi jur gi ñëpp a dem nekk amana waaw taxaw fa nag doon doomi Cap Vert doon doomi ndakaaru jor juddub ndakaaru mel ni ñëpp bàyyi lépp nag topp ci moom loolu loolu la la la mooy mooy cosaanu euh, ànd li ma seen alimaamu mm-hmm. ak ak yëmbal waaw njóobeen mhm. booba ñoo fi ne mhm. idi sinaay ma woote mhm. waaw sëriñ ndakaaru jëli bëkk booba moo ne ci jal bi waaw waaye bañu ko ba ñu ko xatalee mu daal di xanaa di jël jëlëk jëlëk jëlëk euh, jëlëk euh, ndëppal siis photo yam delloo ndakaaru waaw waaye nag lu ñu ñàkkoon ngir seen alimaamu limaamu delloo nañu ko mu mat sëkk waaw waaw waaw seen alimaamu delloo nañu ko mu mat sëkk jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ni leeral nga nu ko jëme ko ci yëmbal cosaanam waaye ak mag ñi tamit ku ni yëmbalit di nga fi fekk jumaa ndax dëkk bu nu miinoo daara la te na comme ni nga ko waxee ci mag ñi mag ñi nga xam ni ñoom la sanga bu baax ba Seydina Limaam doon bindaloo xutba yi fii la nu nekkoon ci yëmbal jumaa wu yëmbal loonu ci mën a wax ci li nga xamante ni nii tey euh, moom lañ ci mën a am luñ ciy jàngat euh, yëmbal ba mu ba ñu ba ñooñu mm-hmm. euh, dañoo fee dañoo dañoo bu rëy rëy ci dëkk bi mm-hmm. euh, yëmbal naka jekk sax yëmbal daan nañu jàng mm-hmm. parce que seen maam euh, Masamba Koki Diop la waaye nag dafa geddoon ceddo ga tànn lislaam gàddaaye gàddaaye Kajoor ñëw Ndakaaru bi mu ñëwee Ndakaaroo tam bi ñu ko fi mayee soxna mu am fi doom itam doom bi da jàngal muy sëriñ Ndaka muy jàll Mamour jàll ba nga xamante ne jàng na ba ba sori mu jël ko yóbbu yóbbu ko Fuuta mu dem jàngi ba mu demee ba ñëw itam ba ñu ko nee eh, ba jox ilimaan ji ilimaan mu nekk ilimaan ilimaani Ndakaaru di leen xam-xam ak lépp waaye nag am na lu mu jëlee Fuuta muy tata ya nga xam ne ñu ko fa daan def rempart yi ñu fa daan di ko baare eh, almaami bi Trarza ba mu mu xelal Ndakaaru ne ngeen am mën ngeen jot seen bopp kat ni balaa mat da ngay moom sa ci naan mu ne kajoor yi nga xam ne dañ ñoo moom yilif ju li ñu joxe li ñu laaj galak na dañ ñu lu muy dañee mu da ngeen tabax tata yi ci diggante Yoff ak koo ak am basalte boobu nañu ko tabax tegale ko tata place jàmmalaay ba fii ci mariste yi dex gi parce que euh, plage euh, parc daan ak dexe nga fa waaw dex googu yàgg mu ne ba dex gi bu koy fee dex gi nag continuer ba ci ba ci route de Rufisque diggante boobu ak tefes gi nag ak aw yoon lay doon rek moom moo tax ñu naan bunte bu yaraax bi ba Ndakaaru benn bunte la woon ñu bunte bu yaraax bi bu ñu bunte bu yaraax ba rek mooy foofu foofu rek mën a duggee Ndakaaru ba mu nit xelee loolu ñu ànd ca euh, damel yónnee di laaj galak ñu ne ko joxe wuñu mu waaj takke kajoor amarindee la ba mu ñëwee jël teeru ko ñu weccee jum weccee sox ba mu wane ginnaaw sëriñ Ndakaaru jël di ko rëgët ànd ak Ndakaaru di ko rëgët di ko rëgët ba tànn ma mu ne ginnaaw si tey nag fii la Ndakaaru yem frontière u Ndakaaru génne naa ko yaraax indi naa ko fii ci tan mi ñu ci tàmbalee tan mi fii ci tan mi jandeer ba ba ngor benn bopp la yéen ba ngor benn bopp la tey jii dog naa dog naa bu mag jàmm gi ñu nekk yaay chef supérieur de la communauté Lébu ñëw nakaaru ne ko yaay buur mu ne du ma buur ñu sama dafa gën doon buur ñu dëgg ci lislaam fi ma toll ci lislaam dootu ma doon buur mu tudde damel mu tudde nekk Ndakaaru muy sëriñ amoon nañu tara ci waaye bi nga xamante ne seen maam woote na ñoom ñoo ñu uyu ji seen maam mu ñi nga xamee ñoo uyu si di kàngam yoo xamante ne jeexal ñu téere yi mm-hmm. fii leen yebal mm-hmm. Tafsir Momar Ndiaye mu ngi ko yor jàkka ji mooy maami waa ba tey mooy maami mooy baayam ndey mooy jur ndeyam waaw moom eh, boo fa jógee Cheikh Matar mu yor ji jumaa ji boo fa jógee Cheikh Jibril Cheikh Jibril mooy waajur imam Mamadou Saxir di maame imam bii teg waax bii tey waaw kooku moo doon secrétaire général imam Baye Mor Marème nee na ba nga xamante ne sanga bi mu ngi waaj a dem nene nee na bëccëg booba maak moom ñoo yendu ba ci takkusaan mu woo ma ne ma Momar mu ne ma dama jël ma Cheikh Jibril nee na ma taal sama oto ñëw jël si Cheikh Jibril nee na maa ngi ko yebe yëmbal yóbbu koy Cambérène bu ma nee ba tolloog foofu ñu marsigal tàppe ci ci xaw ma kaw mi la xaw ma foofu tund wu xonq fa nekkoon suuf su xonq cooy nee mu ne ma fal nii ma taxaw maa di wàcc julli takkusaan ki ne kurusam nag di tasab ba moor mare ne ma ma yàkkam ci lool léeg-léeg ma taal oto bi accéléré fayaat ba njëkk mu ne ma nii gees daa may ma ñëw ma toog muy kurus mbàggal daal ma nekk xër nga xër nga ci seen ay saa lool de waaw waaye nag daa ma nga yàlla nag seen ay saa matal na waaw dootu sori kat mhm. waaw daal ne gees xool ka mu ne ko man te man sax lay Cheikh Jibril bu Seydina Issa génnee weer bi man ma bàyyi mhm. yaakaar naa ko nee na Baye Mor mel ni nee ma nee na ma ma nii rek maa pikiir nag mhm. ma yaram bépp a dee ma ma raam ndànk ma dox ndànk dem ci bii bi te nee nu ma àggee Cambérène waaw deuxième laa doon daw xamal troisième laa doon daw ma àggee nee na ñu dem ci sanga mu ne cheikh jibril ñëw nga bàyyi jibril ñëw nga bàyyi la ko doon wax bàyyi jibril ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko sama bàyyi lu mu wax ani xutba yi mu ne ko mu ngi nii mu ne sama bàyyi lu mu wax mu jàng xutba bi xutba seen imaamu mu ne ko man nag lu ma wax nee na bàyyi mor nee na cheikh jibril jàng xutba boobu mu ne ko loolu de laa wax li sama bàyyi li loolu la wax mu nga nag maa ngi noonu mamar delloo góor gi mu ñibbi ne la may bee góor gi yi ni ko yëmbal ba ma delluwaatee laa la laa fekk sanga bi génn naa waaw juróom-ñeenti nit yi nga xamante ne mhm. ñoo taxaw Seydina Isa mhm. ba denc ka mhm. Mor Maram ci la bokkoon waaw waaw kon yëmbal yàgg nañoo ko Seydina Limaamu yàgg nañoo ko tam Seydina Isa Seydina Isa daan am fukki fan Cambérène Yoof am fukki fan Cambérène am fukki fan yëmbal ba am weer Yoof am weer Cambérène am weer yëmbal néeg fi amoon ak lépp ay soxnaam ne fi jërëjëf loolu leer na ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci kàddu yooyu nga xamante ni nii kàddu yu am solo la yu matale ñu ngi lay sant baax di la gërëm ah Serigne Youssou damay ñëw ci yow ci fi nga xamante ni nii foofu laa laa gisee dina daanele foofu la ñuy ñëw ci yow bu ko defee nag ñu daal di lay jox ah, kàddu gi bu ko defee nga daal di wax ci fi nga xamante ni nii foofu la daanele. Seydina Limaamu ak yëmbal dañoo bokk lu jiitu Baay Laay di woote. sëy naa dugg na si ne muy nëpp ak Salla Mbadia mm-hmm. waaye dañoo bokk dafa amit ñu si bokk ak moom ca Kumba Ndooy mm-hmm. pour ma jaar si bu gàtt rek mm-hmm. sëñ paate mi muy wax Tufi Ndooy ak Binta Ndooy ñoo bokk ndey ak baay kii moo jur paate gumba mu jur sama baay kii moo jur xaali Jibrin Jaañ ñoom ak Kumba Ndooy ay doomi baay lañu kon dafa am ñaar yëpp fu si nekk ay bokkam ñu ngi fi ba tey itam dëkkindooy ak sëgi mbay ndooy ki jur moor mbay si mbayeen gi mhm. di maami sarun mbay mi ñoom it nañu noonu la ñu bokk ak kumba kon lu jiitu muy woote bokk gi defee ne mhm. moo tax bi bàyyi lay wootee mu fonkoon yëmbal waaye yëmbal am ca taxawaay mhm. ndax bokk na ci sëy naa jaar na si ndax ba bàyyi maali mbay di wax ca boroom xam-xam ya booba ñamu cité mooy ñi nga xam ne dañu ñëw ndax ba mu jëlee Ibrahima Mbengue dafa jël Matarlo ak Jibril Ngay wax leen ndax seen xam-xam pour ñu firi téere ya pour yee gindi nit ñi ñu xam kuy Seydina Limaamu kon loola xam-xam ba ak ngëm gaak dëggu gaa tax bi loolu amee ni bay lay woote mag ñi taxaw si jàppale ko ca woote ba sëñ Paate ma nga moo fi nekkoon lu jiitu maam Momar di ñëw ba ñu gëmee moom ba mu demee ba gis ne Baay Laay moom la mu nekk wër naa garab gi doon doptal tànk bi ma doon topp waaye gisuma fu mu génne kon yow la keroog la ne la ne maa moom yëmbal maa moom asakaya ya bés ni tey asaka yëmbal dina ñëw fii fala asaka jóg soog a jëkk tàmbale ñëw si Baay Laay ñu di ko dajale di yóbbu mu am ñuy jaar sa ginnaaw dem bàyyi lay ne leen dellu leen sa paate ngeen jox ko kooku yëmbal gii la waaye ci mag ñi ñëw ni ko Seydina waxe nga xam dañoo ñëw ëtt bii ñu nekk Tafsir Mor Ndiaye bi mu ñëwee te gëm limaamu dafa jël ab jigéenam bu ñuy wax Alsaan Ndiaye jox ko limaamu jël doomi jiit leem di maam xari mbay moo jur ma njoon Jóob jox ko maam xëri mbay wax na wax na ne bàyyi lay sax bu ma saa di lekk mhm. li ko gënoon day bëgg moom maam xëri ñëw ñu bokk lekk kooku mu ngi si ëtt bii mhm. bi nga xamee yëmbal loolu am na mhm. maam aay ñu di ko wax maam Abdoulaye Diop dawur la nga xam ne pour yëmbal si seen taxawaay si diini yi mu yàgg mooy moo jëkk a liggéey ba ñuy dem di yanu ay say barax di dem di liggéey def lu ne mu ne nañu def kër goo xam ne dañu koy def duutu fi jóg mooy kër ak mag moom kooku si ay ak ab lay Diop ci la tàmbalee moo jëkk digal mag ñu lool ñu def fa kër ak mag moom ba tey mooy kër googu nga xam ne ku fi nekk xalifa yaa moom kon yëmbal yàgg nañ su taxawaay boobu waaye maam ci fonk ñu fonk ak yëmbal ñu yëmbal nu mu bokk seen alimaamu moo tax ba Seyna Issa départ war wuuti si Madiou moom mu bokk sa ña nga xamoon ñoo àndoon ak Seyna Issa pour ñëw dëggal woote limaam bu pour Issa war a mën a jullee limaamul Mahdiou maam Fatou Waré maami Seyna Ndiaye mi toog Baye Malick Thioune wax na ma ne si Seyna xam nga Seyna Issa soo gisee Baye Laay jël Seyna Issa am na soxna yëmbal mu jël Seydina Mandione mu am fi soxna kon yootu ak bokk ak démb dafa tax Baye Malick Thioune nekk wala réew Seydina Issa Baye Malick Thioune nee na ma bu ñu masaa jël say barax yi dem di bu yóbbu yoof dañuy fekk Seydina Issa taxaw waaye bu ñëwee da leen naan malik mu naa ah, mu nekk bu ngeen ñëwatee ba romb fi Seydina Mandione nekk boobu kenn maasewul jàmmale ay tund la woon amoon na benn tund bu nekk foofu wàcc jëm sa bunta bële mu ne ko bu ngeen fa ñëwatee buleen leen dox na ngeen ñukk ndax foofa mooy safa ak marwa kon dey dal di dëggal lañu ne la woon fa màkk ak medina ñu ngi ko boole jàmmalaay loolu bay Malick Thioune wax na ma ko ne Seyna Issa daana leen ko wax waaye si xaritoogu mu xaritoog moom it ci la toog ba bi Seyna Issa demee léeg mu feeñu ko nekk ne ko Malick mu ne ma ne ko kaay ma jàngal la julli maanaam taxawaayu julli jóg taxaw toogaayu julli mu ne ko yëgoo ne bu àllaaxira sama borom di day jël ndox mu ritax fekk ñi doon julli mu doxe leen ginnaaw tuur leen ko Baye Malick Thioune moom ma ko wax de ne sëy naa ko mu ne ko ndox mi ndax ñi daan toog di cogon da leen di yóbbuwaale kon loolu lépp day dëggale na ndekete yàlla moo bëgg ku ko yëg ba lu mu doon da ngay xam li ngay def lan la pour nga def ko sa yitte xam nga dégg loolu kon kóllëre gu fi nekk yàgg fi nag ak mag ñi lool lool lool lool ba moo tax li mag ñi bari lépp nag si yëmbal yëgoo ne ku fi kuñ fi ma kër ga xëccoo la ak dëkk bi fekk génn nga bañ denc la muy góor gu gore goo xamante ne gii lu ñu masaa def kenn du ko si man muy bàyyi Yuusu di bàyyi bàyyi monsieur Male keroog ba ko dugalee si armeel ba ñu ci la armeel ba rës waaye résultat ñu ngi ko xamee sama kon nag man loo la ma say jànge lama ardalaaw biit yaa fi dunya kon at war a dunya kon dëkk bi yàlla namee bàyyi laay feeñ ba mu wëndeel kon la woon fële bu ñëwee fii placement ba foofa lenn lu nekk loolu lay rafet na jërëjëf kaddu gi rafet na muy sëriñ Youssou ci kaddu yi am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmee ko ci kaddu yi nga xam ne jib na ginnaaw bi nga xamante ni Alaaji Seydina Ndiaye wax na ko muy kaddu yu am solo yooyu. bu ko defee damay dem ci imaam bu ko defee ñu daal di koy jox euh, kaddu gi moom it mu daal di nii am loo xamante ni moom la ñu wax ndax moom moo nu wara ubbal li nga xamante ni nii tey mooy waxtaan wi ñu daal di koy déglu mu daal di wax bu ko defee après ñu doog a ñëwaat ci Alaaji Seydina Ndiaye mu tëj kon dañuy jox imaam. sant rek lay doon ak kàddu ñaan di ak sant gi mooy sant télé bi nga xam ne moo am xalaat ñëw fii ci dëkk bi. ku a leeral mën a feddali relation mooy buum gi nga xam ne naka jekk dafa mas a am ci diggante Seydina Imaamullahi ak Yëmbal te it dafa bokk it ci weesaare xamle woote Seydina Imaamu alayhi salaatu wasalaam kon ñi xalaat boobu dañ leen ci sant ñaanal leen ñaanal leen ñaan gi nag mu dugg ci ñaan gi ñu ñaanal al xalifatul am Seydina Baye Abdoulaye ñaan yàlla yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mboolem ahlu taxawaay bi nga xam ne njaboot gi ñu ngi koy taxaw ci woote bi nga xam ne woote Seydina Imaamulaay alayhi salaatu wasalaam ba xamal ko àdduna ba xam naa ne léegi yaakaar naa ne te gis naa ne werante bi wàññiku na ndax kàddu yi leer na lay wi jub na ndax ki ñuy layal dafa yomb layal lii nag dafa bokk ci loolu ndax nit ku nekk yonente bu nekk bu wootee lay dëgëral woote ba ñeneen lay doon ñu ko gëm ndax boo xoolee delluwaat mag nga delluwaat ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ba mu wootee ci mag am nañu ko topp de naam waaye néew nañu lool te ñi maw ñu woon sax a feeñ ci ci tàmbali ci tàmbali bi waaye dafa daan toog ca kaaba ga bu seen waxtu jotee waxtu wi nga xam ne ca la arab yëpp ñëw di di ñëw di aj ci seen ak seen aj ak gañ daan def muy xool kan moo ko war kan la ko mën a wax ñan la ko mën a wax pour ñu mën kaa jàppale yàlla dogal mu dajeek waa Yasrib ba muy Madina waxtaan ak ñoom ba déggoo ci ay kàddu ñu nekkoon nañ bàyyi ba déwén déwén ñëw ñu waa yeste ba ñëwaat yokk mbooloo ma ñu bàyyi ba guddi ba ñëpp tëdd mu dajeek ñoom ñu waxtaan ak ñoom ba déggoo ci ay kàddu ñooñu ñoo ko jàppale ba ba diine ji ñëw ñëw tey kon taxawaay boobu nga xam ne waa yeste ba taxawoon nañ ko taxawaay boobu dafay niroog taxawaayu yëmbal ci ni ko El Hadj Seydina waxee ndax Seydina Limaamu ab wooteem bu ci yëmbal jàppul woon du woote du dañ de kenn mënu ko dindi waaye waaye waaye dimbali na ko ci ñi gan yi ndax boo ne al ansaar boo ko déggee nasrun boobu ngay wax minallahi ci la jóge benn baat bi la nasara yansuru kon ku lay dimbali kuy jàppale la moom la ñu tuddee waa man saar moo tax bi nga xamee ne Seydina naa alayhi salaatu wasalaam woote na Yoof ña ko fa topp néew na ña ko topp ñu Ndakaaru it néew na waaye ña toppa Ndakaaru sax buñ ko bëggoon jàppale te waa yëmbal jàppale wuñu ko li ko waa yëmbal jariñ duñ ko mën a jariñ ndax ndax yëmbal ñoo nekkoon ci suuf si ñoo nekkoon ci géej gi ñoo nekkoon fu yaatu ñoo mën a dalal gan kon fa tabarakallahu ci tawfiixillahi ci la waa yëmbal gépp àndandoo jàppale seydina imaamullahi alayhi salaatu wasalaam ba ni ko waxee ba looloo waral loolu moo waral ku mel ne man tey jii ma nekk ci yëmbal ndax ci jàppale googu ci la Cheikh Matar Lo ñëwee yëmbal ci jàppale googu ci la Cheikh Jibril ñëwee yëmbal bu ñëwee yëmbal ñu ñu jàppale nag jàpp jàpp goo xam ne ëpp na sax jàpp ni ñu jàppee seeni doom ndax Cheikh Jibril boo xoolee histoire Cheikh Jibril nekk na yëmbal ba yàgg moom mu gis faneen fu mën a baye mu taxu dem foofa muy ñàkku rab yóbbuwale njabootam lan moo xew waaye mbël la dem jëli waat kër nekk ñëwal jaar ci Seydina Isa lañu jaar nag ndax ñëpp lépp lépp ci kilifteef la ñuy jaar bañ jaaree Seydina Isa Cheikh Jibril bañ ñëwee wax ko comme kàddu Seydina saa jóg na rek day dellu si waat mu nekkoon nag ci loo xam ne moom ak ñi nga xam ne ñooy waa Yeumbeul ah demoon nañu ba ki nga xamee ne mooy moo moo moo moo mooy mooy mooy Serigne Yeumbeul ba ko waa Dakar woowee utal kër nga nekk fi Momar Xari dane bu ñu mooy utalee kër ba ma nekk fi Cheikh Jibril dinañ ko utal kër mu nekk sama wet ndax bu may julli mu jiite ma bu ma laajee bu ma laajee bu ma bu amee lu may laaj bu nekk sama wet kon yaatal googu nga xam ne moom la ñu yaatal ki wax na ko si naa wax jaar na ci jaar ci lu bari lan moo ko waraloon mooy bokk pas-pas ak gëm Seydina Limaamu war ne am na ñoom lu ñu ko war a mën a jàppale ñu jàppale ko. waaye nag am am am mbëggante ki nga xam ne moom la yàlla def ci diggante jullit ak moroomam moom mu nekk seen diggante ba loolu moo moo moo moo moo waral euh, ñi nga xam ne wax nañ leen léegi muy ñu mag ñooñu di maam Momar Ndiaye jàpp maam Mokhtar Lo ak maam Cheikh Jibril ñu ñëw fii te dëkkuñu fi woon waaye bi ñëwee it yëmbal yaatal nañ leen ba kenn xammewu leen ak ñu fi jëkk ñu fi ñu fi jotaanoo ndax lépp loo xam ne ñu fi jotaanoo amoon nañ ko fi ñoom am nañ ko fi amul amul dara leen manque bi dee tool dañoo dañoo dañoo am dañoo bay ba doyal am nañu ay tool bu dee bu dee jaxasoo gi relation bi diggante nit ak nit lépp seen lépp dafa mat fa tabarakallahu kon loolu moom la ñi fi nekk yi ba léegi loolu la ñuy doxal ak ñun ñi nga xam ne yooyu teet yi ñi fi nekk it fa tabarakallahu waaw loolu moo moo moo ndax imam saxir mhm. eh, fa tabar bi mu jotee bi mu jotee bi mu fi nekkee ci même ci jamonoy mam Cheikh Jibril ci la ci la sos daara mhm. waaye daara jooju mhm. duñ wax daara ndax daara bu ñu ne daara dañuy yëfa ne daara alxuraan la waaye mam Cheikh Jibril ga yor na daara alxuraan waaye eh, imam saxir dafa ñëw jamono jooja yaatoogu loolu barewul ci Sénégal waaye mu ne dafa ut daara li ñuy wax daara moderne mooy damay jàngal nit ñi alxuraan waaye dama leen di jàngal arab daal di ut école arabe booba yàgg na ay 1954 55 booba booba booba fii yëpp dara naw fi diggante yëmbal ba ba ba Pikine ginnaaw gi la fa benn école arabe am muy mu muy mu fekk moom moom am na bu yàgg ko boo am ci diggante boobu nag ci ci la formé na ci boobu ak léegi ñu baree bare baree baree baree bari ci ñi nga xam ne ñoo sant Diop ak ñi sant Gaye ak ñi sant ñeneen ñu bari bari forme nañ ci ba ba tax na jumaa ji bi mu fi bi mu fi jógee mënoon nañ moom mënoon man keneen ñeneen mënoon nañ kaa jël ndax ñu formé bari na waaye kóllëre googu ci lañu ci lañu ci la ñu sax ba ne ba ne jumaa ji nañ ko bàyyi fii ci ci ci famille famille eh, famille imam Saxir waaw ndax mm, ñeneen monsieur Diop a ngi nii mm-hmm. mënoon na yor mm-hmm. moom Mbaye Youssou Mbaye jur ci mm-hmm. <laughs> kon kon ba maamoom sañce yëmba kaneen kan ñeneen ak ñeneen ak ñeen bari nañu waaye waaye kóllëre googu ñu ngi koy doxal ba néegi dañ leen di sant rek leen ñaanal li nga xam ne moom la ñu bëgg ci dëkk bi yàlla na yàlla defal dañuy bëgg nag di ñaan ñaanit li nga xam ne amoon nañ ko ndax ñëpp daanañ wax ne sëy naa li maamu daawul daawul julli korite wa te yëmbal ñëwul balaa balaa julli sax dina nemb ku ndax yëmbal ñëw naam déet mag ñi dinañ wax ne mas naa wax ne yëmbal fu waay dawe bu fekkonte ne nit ab ab naankat moo moo daanu ci yëmbal sax ak fekk dafa naanoon ba màndi ba dee ba dee fi àjjana la jëm waaw loolu nag du suuf seeka amoon de déedéet ay nit ak amoon nit yooyu nag seen pas-pas seen ngëm seen ak jub seen ak baax moo tax ñu am ko kon ñuy ñaan ñi fi ñi fi des léegi ñi fi des léegi yal na yàlla may ba ba loola nga xam ne amoon nañu ko mu sax ndax garab la kat garab la goo xam ne dañ kaa dañ ko doon soxat muy meññ muy meññ buñ ko bàyyee suuxat doot dootul meññ kon nag ñu yemale foofu wax ji ndax xëy na wax ji xaw naa gudd waaye dama dama dama doon kii rek Euh, tëj rek wax wax ji rafetlu it ndax li ci ëpp daal yéene ji moo doon ñaan mhm, euh, yàlla neen yàlla euh, dimbali ñi nga xam ne mooy mooy appel bi ñu jëmit mhm. lépp lu ciy taw féex ak taysiir yàlla nag yàlla def te ñu def ko it ay yoon yoon yoon yoon yoon te lii nga xam ne moom la mooy woote bi Seydina al imaamu alayhi salaatu wasalaam bi dañ wax ne ba mu amee téeméeri at lañ lañ nekk kenn kenn mënu kaa dindi mhm. kenn mënatu kaa dindi waaye léegi am na téeméeri at fanweer rek nangam mm-hmm. ah yàlla nag yàlla yàlla nañ ko taxawee nag ñi ñi ko taxawee rek mm-hmm. yàlla na gën a yaatu at at mu jot te loolu it lu am la waaye dañu ñu ñaan yàlla mu gën a yokku mm-hmm. at mu jot dina gën a yokk at mu jot dina gën a dëgër at mu jot di ñi dañ gën a am lu leen leer fa tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf imam ci kàddu yu am solo yooyu xam naa ma Moussa Diop mooy ñëw euh, bu ko defee it nag moom sànni ci kàddu yu néew rek euh, daan balaa ñuy tëj bu ko defee ndax loolu dina ci am solo lanu gënoon bëgg ci waxtaan wi yëpp ndeysaan xaju fi sax waaye incha allahu rabbi dinañ fi ñëwaat ci beneen jotaay waxtaan ci ak ñoom ci li nga xamante ni nii mooy histoire yëmbal ndax ku xam histoire yëmbal ne xam ni nekk na loo xamante ni lu yaatu la te loo xamante ne ni jëflante la woon ak li Limam Mahdi alayhi salaatu wasalaam jaar ci Seydina Isa ba ci njabootam gi yëpp waaye ndax euh, tey jii nii Seydi Maam Alassane gi yëmbal rek Serigne Ablaye gi yëmbal rek loolu xajul ci benn benn émission. jërëjëf Mame Moussa Diop ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di xamal mbokk yi ñu doon seetaan ni tey ñu ngi woon fii ci yëmbal ci kër Imam Sakhir nga xamante ne ni tey ñëw nañu fi ànd ak euh, magu yëmbal yi waxtaane dëkk bi. waxtaan it nag mag ñi nekkoon ci dëkk bi waaye gis nga Euh, lépp rek luñ ci bëggoon rek euh, daanaka waxtu bi mayu na ko waaye incha allahu rabbi dinañ fi dellu si ci yeneen jotaay waxtaanaat bu baax ci dëkk bi bu baax a baax ñu ngi leen di xamal ni jotaay bi li ko waral mooy euh, waajal appelu Seydina Limam Mahdi alayhi salaatu wa salaam muy 138e appel bi nga xamante ñu ngi koy wàcc ci weer wi nu mal muy le 16 avril ak le 17 avril 2018 kon nag bu ko defee ñu ngi ñaan yàlla bis bi nu dëkkmal yàlla na nu yàlla may ñu egg ci ak jàmm ñaanal sunu xalifa Seydina Baye yàgg fi loolu te ànd ak wér ñaan rakkam yëpp nag jiital ci Mouhamadul Amin mi nga xam ni moom mooy génn ànd ak euh, euh, rakkam ya maam Libaas ak imaam Momadul Mokhtar ak maam Alsaan waaye nag ànd ak seen doom doom yi Seydina lay mu euh, Serif Abdoulahi ak Seydi Thiaw mu bàyyi raan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ziar leen ak njaboot gi nekk ci ginnaaw yëpp di sant bu baax di gërëm ñi ngi nu seqaloon jotaay bi ñëpp sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax senu ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal ci matxu bi nga ubbee am na solo yàlla na yàlla fay la maam yoosu Youssou jëf taxawaay bi rafet na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm alaaji Seydina jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye imaam jërëjëf imaam jërëjëf ndax da yàlla dafa bind ay jëmm yoo xam ne soo nee leen jàkk da ngay bëgg a xam-xam da ngay gën a bëgg yaru da ngay gën a bëgg diine da ngay gën a bëgg a jullite kon te imaam ci jëmm yooyu la bokk kon imaam ñu ngi lay ñaanal fa nu toll yàlla na yàlla defal la xéewal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sant na ñu nu àndaloon ci liggéey bi muy Yaxya di ko sant bu baax ak uh, ak laay ci liggéey bi rafet na ñu ngi leen di sant bu baax kon ñu ngi leen doxa joxaat dig daje ci beneen jotaay incha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.